ci ndakaaru ak li ko wër am nañ ci fukki cas ci gox yi ñaar ci Parcelles Assainies benn ci Rebeuss Fann Résidence Liberté 6 Ouest Foire Yoff Guédiawaye Pikine ak Sangalkam ci région yi am nañ ci fukk benn yu tëddee ni ñaar ci Touba benn ci Jànke Maxa Kaolack Kédougou Saraya Saint-Louis Tambacounda ak Ziguinchor ñaar téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñaar ci malade yu entré woon ak ñi ñu toppoon ci biir kër yi wér nañu bés ni ki tey dinañu génn bu ci yàllaande fanweer ak ñeent malade ñoo nekk réanimation ñeent ñoo ñàkk seen bakkan bu démb bésu altine ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru mars mi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ak ñi ñi topp ci biir kër yi ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci kaw bu njëkk ba senegal wëññi na fanweeri junni ak juróom-ñaar ak juróom ak juróom fukk ak juróom-benn ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu fanweeri junni ak juróom ak téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent junni ak ñaar fukk ñoo ñàkk seen bakkan mu des junni ak juróom-ñaar téeméer ak juróom fukk ak juróom-benn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 seen rendez-vous pour mun a tollanti ñaareelu dose vaccination bi ñu leen jagleel ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi leen di sant di leen gërëm wasalaam